ministère des sports déglu si ministre bi ci conférence de presse bu mu woote woon. ah ñu ngi sunu jaaxal sunu grand Malick Thiandoum bu E-Media grand frère déglu nga ministre Matar Ba ministre des sports ay waxam ginnaaw bu ma la nuyoo ziar la loo ci jàngat. waaw dañuy euh, sant yàlla d'abord euh, julli ci yonent bi sant bu baax euh, suñu ay waajur mais aussi di profito ci bësu ajuma bi tey di massawu ñëpp ñi nga xam ne. ñàkk nañu seen bakkan ci euh, fitna ji fi amoon ci jamono ji ñu génn euh, di wax ni yàlla na leen yàlla xare ajana euh, te lu mel ni yàlla bu mu amati Sénégal parce que fitna xajul ci Sénégal beneen bi ci des aussi conférence de presse bi dañ ci am ñaari mbir yu nga xam ne jàngat nañ ko ci benn bi ci njëkk xam naa ni muy yow muy man moo ñu ci gën a intéressé mooy d'abord que ne état d'urgence sanitaire bi président de la République daf koy lever le 19. donc ça veut que à partir du 20 nga xam ne ci ne Serigne Modou Niang war a tëgg première affiche am public bi mën nañu commencé waat ñëw donc tey lamb huis clos teg nañ ko ci suuf te man musuma si d'accord fu ma toog wax naa ne man lamb huis clos ñaari ponkal yu takk ngemb taxaw ci géew kenn seetaanu leen kenn tàccewu leen loolu du saf xorom du saf suukar donc tey dañuy sant yàlla bi nga xamee ni état d'urgence sanitaire bi levé nañu ko ba activité sportive yi dinañu mun a am public euh, football bi également c'est la même chose basket bi c'est la même chose donc toutes les activités sportives dinañ ko mun def avec la présence du public mais aussi leneen li nga xam ne ministre yokk na ko ci mooy ñiy organiser nañu dëppoo ak li nga xam ne moom la euh, waa kër docteur santaane mooy ñuy takk masque yi di raxasu di respecter distanciation sociale bi je pense que loolu euh, tekki na nii rek tey activités yi jolliwaat na dooraat na bàyyiwaat nañu nit ñi ci seen teyu bakkan parce que loolu tey moom la askan bi soxla woon boo gisee manifestation yi am barki dem euh, c'est pas Sonko qui est l'élément euh, fondamental mais dafa au-delà de Sonko dañu war a jàng ne que nit ñi ñoom ñoo am euh, xëy na lu leen métti ndax état d'urgence bi dafa mujj métti ci askan bi ñu bëri amatuñu la ñu doon am ci koom mu yow muy man ku ci nekk la nga daan am amatoo ko la nga mënoon mënatoo ko euh, ba pare euh, couvre-feu bi ñëw gën a yokk loolu yëpp donc yooyu frustration yooyu askan bi daje moom moo gën a yokk tey ampleur li nga xam ne xew na fi barki demb kon alhamdulilah bi nga xamee ni autorités yi comprendre nañu ni. instant bi war nañu bàyyi askan bi ñu delluwaat ci seen i activité parce que loolu mooy li nga xam ne mooy soqali koom-koomu réew mi mais mooy indi dal également ci réew mi kon à partir d'aujourd'hui tey su ma la déggee euh, tey état du Sénégal mu mel ni kon dafa mel ni li fi am bërki dem am na jàngat bu ñu ci def ba tax tey ñu soppi doxalin su ma la déggee. waaw c'est un signal fort et le président de la République wax na ko euh, moom ci boppam nee na dégg naa li ngeen ma wax. donc message bi ma euh, jeunesse bi envoyé décrypté naa ko donc ci décrypté ci décrypté bi mu décrypté message bi ko jeunesse bi envoyé à travers les manifestations ci le président de la république xam ne nit ñi dañoo sonn ci tëju bi nit ñi dañoo fatt ci teel a tëdd bi nit ñi dañoo fatt ci bañ a def li nga xam ne mooy seen liggéey muy seen activité moo xam làmb la ak leneen donc loolu je pense que le président a perçu le message de la jeunesse jeunesse bi dañu soxla tey yeeweeku dañu soxla dellu ci seen i activité parce que tey bu fekkee dañoo topp mbas mi rek topp coronavirus bi je pense que ñun ñëpp dinañu dem ba leneen rey ñu lu dul corona euh, te li ñuy rey lu dul corona mooy xiif ba dee wala ñàkk ba dee wala mer ba dee xajul ci kenn euh, boo gisee mbëkk mbëkk mi fi amoon ak empleur bi mu jëloon lool c'était un signal malheureusement waa kuy dugg géej ak risque yi ci am yëpp ragalul xeex parce que géej moo gën a garaaw taxaw fii di sànnante ay xeer euh, ak ak ak ak force de l'ordre yi donc je pense que nit ñi bu ñu demee bay songu géej gi moment boobu rek autorités yi waroon nañu xam ne alerte am na parce que boobu la woon alerte bu njëkk bi malheureusement dañu tànqamlu bi ñu tànqamloo ba nit ñi dem ba sës euh, tey Sonko moo nekk l'élément déclencheur mais au-delà de de Sonko nit ñi dañu wane seen frustration wane seen mer e je pense que tey jii autorités yi heureusement bi ñu comprendre ni jot na ñu yeewi askan wi ku nekk delluwaat ci say activité sa turandoo moom ñëpp dañ na daa juum mooy maître Malick Sall ministre de la justice. waaw maître euh, Malick Sall keroog ci communication bi mu def France 24 effectivement dafa juum ci communication bi parce que aussi euh, li xew. dama ko wax si benn rajo bu fekkee ni da nga ko bëgg a assimiler ak li làmb ji tëj mbër yi di entrainer nekk ci écurie yi amuñu combat nga yaakaar ni ñooñu ñoom ñoo génnoon dañoo bokk ci parce que c'est pas c'est c'est pas des gens à part à part c'est des gens à part ñi nga xam ne dañu bokk ci société bi du ñu nga xamante ni ay nit lañu à part les lutteurs ak ak ak ak ak le monde de la lutte dañu bokk ci société bi bokk ci état bi frustration bi. Euh, jaaykatu restaurant bi am frustration bi borom hôtel bi am frustration bi jaaykatu ndambe ba nekk ca koñ ba am moom la mbër yi am donc ça veut dire que c'est une frustration générale mais boo stigmatiser wax ne mbër yi ñoom ñoo génn loolu njuumte la de la part du ministre et je pense que il l'a compris parce que communication dafa doy waar am na noo koy waxee rek di nga euh, di nga di nga di nga laal honneuru nit te ni mu waxee il a touché l'orgueil et l'honorabilité du monde de la lutte loolu moo tax réaction ak tiir groupé yooyu am ci mais au la de ça am na jàngat bu positif bu ma ci am moo di ni làmb am na fu mu lu mu représenté ci réew mi am na lu mu représenter ci Sénégal ba ñu yaakaar ni bu làmb doxul ñuy toj ñoom ñoom ñoom ñoom waa làmb la kon ça dire que làmb diis na am na lu mu représenté et il semblerait que ni sax même en conseil des ministres le, le président avait demandé wax na ne na ñu na ñu commencé waat làmb ji parce que làmb facteur de régulation sociale la làmb bu amee tey nga ni Modou Lo mooy bëre ak Ama Baldé pendant juróom nit ñi du ñu tal lu dul loolu bu bés baa ba ñu jàkkaarloo ci géew bi boo sànnee ba mbattu ci arène bi mu mu mu mu takk waaye boo ko sànnee ci mbett mi mbedd mi mu ni tas toj parce que kenn du dox kenn du dox parce que loolu dafa bokk ci liy dundal euh, Sénégal dafa bokk ci liy dundal le monde ñu nekk ci biti muy waa diaspora parce que làmb dafa am lu nga xam ne moom la représenté ci biir réew mi représenté ko ci Sénégal kon nañu jox cër axlu làmb waaw bu ñu jël lu bon di leen ko sànni le ministre def na erreur de communication je pense que il n'est jamais trop tard pour rectifier mais li mu wax noonu am na lu ci positif lu nga xam ne ñun waa làmb war nañ ko mën a jël pour fulandi ko. kontaan ci yow merci beaucoup. ba tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ministère des sports Lamine defe naa yow tamit ci làmb nga yëngutu nekk ci reporter. tey defe naa ne ministre bi woote woon na conférence de presse wax na fi defe ba na na ñu situation làmb par rapport ak week-end yi ñu doon dégg defe naa ne tey daa mel ni loola moom bu doon buum la yeewee nañ ko sànni noo gisee état du Sénégal tey li mu def. Euh, sant rek Babacar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Equivox ñoom ñëpp ak internet yi waaye ni ma koy waxee internet yi ñëpp benn la ñu Lutte TV ak yu Equivox yi ñëpp ñoo bokk fu ñu seetaan ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare di am mbégte nag ci décision bi nga xamante ne tey Matar Ba. jël na ko ak président Macky Sall que ni sport monde sport dinañ demaat maanaam ñi nga xamante ni ñoo doon dem di teewe di di teewe événement yi buñ buñ ñëwul à 100 pour cent tamit ñu ñëw a cinquante pour cent loolu dafa mel ni mbégte la waa dafa mel ni alerte bi nga xamante ni sénégalais yi def nañ ko tamit am na am na ci def waaw. alerte boobu sénégalais am na lu mu ci def est-ce que waroon nañoo yegsi fii ak sénégalais yi. waruñu fi woon egsi waruñu fi parce que yaakaar naa ne tey am réew mënoo koo jiite ba pare xamoo bëgg-bëggu bëgg-bëggu. ña nga jiite su fekkee askan bi xamoo seen bëgg-bëgg jaratul nga leen di jiite yaakaar naa ne loolu yàgg nañoo def na 5 na 6000 na 6000 personnes dugg la wala 22000 places ñoom. mu nekk ministre sport bi mu plaider ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo tënku ci branche am ministre beneen ministère tamit plaider ñi nga xamante ne ñoom tamit ko defee Sénégal jëm kanam lamb daal kontaan nañ ci waaye dafa mel ni nag ci boppam ñoo leen libéré. ñoo leen libéré waaw waaw. kon kon kon. résistant yi. waaw waaw. kon kontaan ci maa ngi lay ziar. Babacar maa delloo ziar bu baax a baax. yow itam ku ne xam ne si làmb nga yëngatu mu mel ni tey defe naa li doon jooy ñu ñëpp bëggoon ko. mooy làmb ji ubbi te bu ubbee ñu mën a dem reporter ji ñiy seetaan mën a ñëw seetaan si daa mel ni mbir moomu tey réglé wu na. waaw di wax rek xanaa alhamdulilahi rabbil alamin ndax euh, liñ doon ñaan yàlla ñun ñëpp suñ borom mën na nañu wax ne suñ borom euh, defal nañu ko mooy que euh, làmb delluwaat ci ay activité am te ni ministre bi waxee tey mën nañu wax ne xel dal na parce que euh, moom nee na euh, bu fekkente ne bii quinze mille places minimum nañu am huit mille places euh, mu nekk ci biir biir biir stade bi mu mel ni kon moitié bi mën nañ kaa am mu nekk la nga xamante ne bii dañ ci dañ ci kontaan am ci mbégte ak contentement bu baax wante di ci centre ministre bi di ci centre président Macky Sall tamit ci autorisation boobu nga xamante ne bii joxaat na ko axlu làmb di wax na daal namoon nañu lamb ñun surtout ñun reporter yi xam naa yow sama xarit bi namoon nga làmb gëj ngaa yor micro gañ ngaa gëj ngaa reporter gën ngaa yuuxu gën ngaa gis ñaari mbër yi jàkkaarloo def seen i débat dépp mi ngi noonu kon mu nekk la nga xamante ne bi dañ ciy am mbégte ak contentement bu baax a baax di ñaan yàlla nag dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim wante àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin tey ñu respecté li nga xamante ne bi moom la ministre bi wax respecté mesure barrières yi di takk masque di raxasu parce que loolu mooy tax euh, làmb ji mën a continuer ci jàmm ak salaam kontaan ci yow Mbaye jaajëf Thomas yàlla na jàmm yàgg may téye keneen di ko téye micro kii tamit xalima la yor di bind ci la tribune di bind ci wàllum làmb di Pape Moussa a defe naa tey defe naa tey ni ma la gisee ngay sourir nii daa mel nii am am am nga contentement parce que làmb daa mel ni gars yi dañ ko namoon defe naa déclaration bi nga dégg fii tey noo ko jàngate ah, waaw kontaan si rek comme ni nga ko waxee xam nga gars yi ñu ngi noo xaar parfois dañ naan sax yenn situation bi dëkk bi ni mu mel bu ñu amoon làmb ji à côté parfois souci yu bëri dinañ ko fàtte xoolal benn combat rek nit ñi niñ ciy waxee xam nga loolu rek dàq na stress ah yéen na nit ñi yeneen problème quoi moo tax tamit dañ koy rafetlu di ñaan tamit comme tamit wax nañ ñu il faut ñu am xel tamit ñoom bu ñu gën a gore bu ñu ubbee affaire yi bàyyi ñu reprendre euh, activité yi bon respect mesures barrières yi nañ nañ ngir yàlla nañ ko nañ ko nañ ko respecté comme ça ñoom duñ am dara ñu naan luñ waaw comme ça duñ ne suñu yëgoon wala nii voilà comme niñ ne public football public bu discipliné la. nañ de nañ def ba wax tamit làmb public bu discipliné lañu am ñoom it. Uh-huh. Uh-huh. muy nuyuwaat D-Média yëpp. waa ñu ngi lay rawatina sama xarit ba Saliou. d'accord dina ko nuyul ma allah daa jëf. ne ko maa ngi koy bégee. <laughs> lépp baax na lépp baax na maar bu ma la yàggee wax baax na rek léegi nga yàq. wóorul yu baaxul yi danga ko koy wan yi baax moom jarta wax maar li nga man kenn du la ci naw mais dangay jéem a def loo managul looloo wóor kan laay jox ci yéen kàddu ginnaaw mu leen nuyu waa INSEPS. waaw Ibrahima Ndiaye laa tudd. maa ngi nekk étudiant ci INSEPS génn depuis 2017 am suñu licence ñun ñi fi taxaw ñëpp tey ay étudiants yoo xamante ni ci INSEPS la ñu formé dans le cadre sportif la ñu formé parce que filière bi ñu doon def mu ngi tudd le management administration des activités physiques et sportives maanaam ci loolu la ñu tàggat ñu gëmal ñu ni boo leen génnee réew mi soxla na leen parce que service départementaux yeeg service régional yi ñu ngi fii soxla ay ndaw ñun ñu xam loolu dam def fa ay stage génn gis ni personnel manqué na fa am na yenn région yoo xamante ak yenn département yi sport bi dafa sooxe ñu génn depuis 2017 di xaar ñu recruter ñu pour ñu mën a dem servir suñu nation gisee ak ministre bi ñaari yoon ay rencontre mu promesse ñu euh, jox ñu ay promesse mais boobu ba léegi dara sottiwut tey ji ku ne xam na fi réew mi toll ndaw yi dañoo soxla liggéey te ñu ñu formé ñoom ñooy dox ci mbedd mi ñu ñu formé ñoom lañ bàyyi ñuy traîner à la rue def nañ stage fu ne mais li ñuy laaj moom mooy président tey ku ne dégg na déclaration bu leer la def département yëpp nañ xool nu ñu employé jeunes yi ñu dugal leen ci fonction publique ñu mën a am liggéey kon bookar naa loolu tamit aussi ñun suñu wàll la su déclaration de ministre bi di am pour ñu ouvriraat activité sportive yi ñu ñëw tamit xamal ko ni ñun ñu ngi nii ay ndaw lañ te dañoo pare pour servir suñu réew yaakaar naa boobu ba léegi yàgg na depuis trois ans tey jii ñi nga xamante ni ak sunu naataangoo lañ woon ministre de la jeunesse jël na leen ñu ngi ci service départementaux yi ñu ngi def seen lu warul ñun boobu ba léegi ñu ngi ñu bàyyi fii ñuy traîner te ay doomu réew mi lañ soxla nañu service suñu réew moo tax tey ñu ñëw vraiment di métti loolu tey jii ñun ñi nga xamante ni lañ formé woon ci management ak euh, administration des activités physiques et sportives on est cinquante cinq euh, cinquante six jeunes lañ formé foofu noonu ñu ngi fii tey jii ñu bàyyi ñu waaw cinquante six jeunes lañ. kon loolu leer waaw ci yow. jërëjëf sa tur Ibrahima Ndiaye laa tudd. waaw jërëjëf maa ngi lay bëggee bu baax.